waaw ñun Sénégal yi nekk fii si Victoria Gasteiz nag xaw nañoo takku xam naa ne lim bi sax dina xaw a jafe eh, tënk wante xam naa lu mu bon bon daal weesu nañu euh, téeméeri nit at lu topp. wolof bi nag fii moom ñun euh, wolof bi daal mooy làkk bi nga xam ne nii moo fi ëpp ñu koy làkk. waaw waaw loolu moom lu am solo la ndax euh, suñu doom yi tamit li ñuy juddoo fii nekk fii tamit war nañoo xam. ñoom seen cosaan seen cosaan nag li njëkk si cosaan nag mooy làkk dañ làkk bi mooy làkk wolof maanaam ñoom fii la ñu juddoo fii la yaroo te xëy na fii la ñu dëkk wante tamit waru ñoo fàtte seen ginnaaw seen ginnaaw nag mooy mooy mooy seen làkk bi si njëkk mooy làkk bi mooy wolof lu am solo la si ñoom am solo la si ñoom ndax war nañoo dellu si seen cosaan si seen dëkk seeti seen i maam wala nemmeekoon ñoom te bu boobaa ñoom tamit ñoom ña ñu fekk dëkk ba wolof la ñuy wax ak ñoom loolu moo tax wolof di làkk ñoom wolof am na am na solo lool am na solo waaw dem sax bu fekkee ne ñun xëy na suñu wàll sax weesu na ndax euskara bi si ñun dina jafe jàng lool ba mokkal ko ndax at yiñ fi ñëwee wante ñun suñu doom yi nga xam ne ñoom fii la ñuy juddoo fii la ñuy yaroo ñoom war nañoo dégg euskara ndax ñoom dañoo bokk si première génération bi nga xam ne nii ñoom ñooy màggee fii te bu boobaa ñoom tamit Yara bi tamit dina yombal ñun ñii nga xam ne nekk nañ fi dina yombal suñu dem leen dëkk bi ñu koy wax integration at ñi nga xam ne ñooy doomu dëkk bi fii ñoom dina si am solo lool sax waaw.